Samia ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi leen di fay. maa ngi am jàmm kay. naka tey noo koy dundee bis. waaw tey xanaa am mbégte rek kontaan rek tey sama xol seet na guy ni galaas bi laay walaay ndax lii dafa neex dajale nit ñi surtout si lu ñuy yëngu muy làmb ñu booloo ni dajale contentement bu rëy daal. Mhm. mais tey ñu bëgg xam Pakala mu bëree si lutte simple dem ba gars yi di ko sànni ay ndox ndakaaru di ko xaañ naan ko génn lutte simple mu dem toog benn diiran lutte avec frappe woon ko ginnaaw mu delluwaat si lutte simple waa Axlaam Sénégal xëy di ko décorer loolu ban yëg-yëg la ci am. waaw mooy lu ma la wax rek contentement rek ñun bëre simple moo ñu faloon ba ñëpp xam ñu benn instant ñu bàyyi ko dem si bëre dóor bëre dóor woon ñu ginnaaw ñu wàccaat mbapat tombek waa ax axlu lamb Sénégal def association muy axlu lamb Sénégal bi ñu nar maa décorer kon loolu noonu mbégte rek di si kontaan bu baax a baax rek. Mhm. mais dañoo force wéewu béy nii am na combat yoo xam ñu ngi waaj a taxaw diggante Pakala Moussa Ndoye wala diggante Pakala Elton combat yooyu lan lañu si euh, euh, Pakala mën a leer. non combat moom benn ñoroo ko si xam naa ne amateurs ñooy commentaire noonu rek waaye amateurs yi ñooy commentaire waaye dara ñoroo ko si daal. waaye Pakala pare na pour jël combat yi. waaw man pare naa pour jël combat mais Elton moom pare moo pour jël ko quoi waaw. lool. xanaa ñu fay ma xaalis dëgg waaw. moo tax nga pare pour jël combat yooyu te pare pour jël combat Elton lan mooy problème. non maak Elton dañoo bëre woon pare ma daan ko te ñii man bëreegu ma ak ñoom te man ñi ma bërelul laa bëgg a bërel mhm. ko daanoon bi daal balaa ñu koo kii il faut ñu fay la xaas bu weex taal. waaw bu weex taal waaw. mais ren jii saison bi nan nga koy waajalee en tant que lutteur boo xam ne chaque jour yaa ngi si compétition yi donte saison bi gàtt mais gis nañ nga def ay preuve euh, ren lan nga ñu mën a wax si looy préparer saison bi. waaw boobu léegi nag bàyyi ñu benn instant mais tëjiwaat nañ lépp ñoo ngi entraînement matin soir xëy dem géej ngoon gi def musculation instant yi contact rek des dem bëre ji pare nañu daal. kon daal pare nga fi mu ne nii daal boo làmb ji tijjee foo ko njëkk a rek daal di ta bopp sab saak daal dem gàdd bi doomu zone non instant yi kay naaj kay boo ko déggoon tey sax dem bëre ji waaw. mais vidéo zone bi loolu moom pour lan la Pakala bi ñëw dañoo gis ni ñu mu dem euh, fi nga xam mooy fatik Ndiaye Ndiaye bi final ak Doudou Sané gars yi naan Pakala fii ñi fi nekk ñëpp nga ñëw ak yow ak sa mbuus mu ndaw bi. waaw lamb moom instant yi toll nii non stress laa siy ndax def naa lu nekk kon mu ñëwaatee damay rafetal nii rek ay gàllaaj yu bëri man dama ko dépassé instant yi toll naa ko bàyyi ak booy rek gàddu sama bidon bu zone boobu rek waaw. kon daal instant yii Pakala amatul leen lu muy stressé wu si làmb. non non dama koo dépassé ndax tàkkusaan bu nekk bëri naa ko façon làmb bu métti bu nekk bëri naa ko kon instant toll yi non stress magum jëmulaa instant yii toll nekkatuma kon ñu ngi lay jaajëfal di la kontaane ba ci kanam. waaw kontaan si yéen jërëjëf.